waaw. nga ñëw gunge ci ah. nga xam waaw suma dama suma waajur moom moo moo moo génn àdduna li muy wax sànq rek loolu laay waxat mooy que ni li bàll di yëg laa yëg maa ngi koy jaale Sa di ko jaale Aziz Ndiaye di ko jaale président bi di ko jaale Sénégal yëpp moom lu lutte yëpp ah. di ko ñaanal nag fu mu jëm yàlla ko yàlla xara àjjana yàlla na ko yàlla jégalee waaw di wax Balla na muñ rek parce que ñun alal yàlla suñu borom lañ. waaw yàlla mooy xool li gën a bëgg mu jël ko te koy dolli ko sant. ëmma ah. ñi ngi lay masaw di la jaal. Ah. ñàkk nga wéjur donte ah. bu jigéen la. lu ñàkk wéjur mel ci lutteur boo xam ne hmm. yaa ngi ci activité yoon. waaw ñàkk waajur dafa métti jàmbaar. Hmm. parce que li ñuy wax rek waajur bu góor moom moom sa alal. Hmm. loolu diine wax. waaw moom nag moom sa alal. wàññeeku war a da nga ko yëg lu Balla di yëg ci xolom la ñu yëg suñu xol. rawatina mu nekk champion du monde nekk international. waaw donc ku baax ku am jom. Mhm. ku marqué empreinte am Sénégal. Mhm. waaw kon def lu ñaanal ko yàlla suñu borom. Mhm. dañuy gis taxawaay bu mel nii bu amee dañuy gis mbëru làmb yëpp ñëw hmm. bokk ak ki nga xamante ne moom la tiis bi dal hmm. mu doon loo xamante ni képp koy seetaan day xam ne yéen a bokk ndey hmm. yéen a bokk bàyyi kon que xale yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi ci suuf di waxante loo xamante ne bu ëllëgee bu bis bu mel nii amee doo siggi xool sama dëgg la mooy sama wax bi rek sport bu boolewul warut a taaxale sport bu boolewul rek warut a taaxale ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñooy moyente xaalis duñu ay ennemi ay adversaire lañ dañuy liggéey bu weesoo bu jeexee rek jeex na du dëgg ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla xam ne ni Balla yëg la ñuy yëg waaw Balla ñàkk ñu ñoo ñàkk parce que papaam ñu ñëpp la liggéeyal du dëgg waaw ñu ngi koy ñaan yàlla fu mu tëdd yàlla Sa ndax euh, donte wéyu ku ne ñàkk ne mais yaa ko njëkk ñàkk ndax ñàkk nga wéyu lan lay doon ci la koy waaw man leen di wax ñu yokku muñ rek parce que ñuy ay ala yàlla suñu borom lañ yàlla bu ngi koy sàkk tàggul kenn te bu koy jël du tàggul kenn moom rek ay buur te xam naa ni gëm nañ yàlla suñu borom ma leen di wax nañ fu mu toll ni ñaan rek lañ ko deseel ko yokk ñaan baa bañ ko fàtte ko ñaan baa jërëjëf